وبلغ ثواب ما قرأنا والنور وطعناه إلى أرواح سيدتنا اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما طلعناه إلى أرواح اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما طلعناه إلى أرواح آبائنا اللهم بلغ ثواب ما قرأنا ونور ما طلعناه إلى روح سيدنا وحبيبنا ومولانا شيخنا سيد محمد بن عبد الله وروح آبائه اللهم بلغ ثواب ما قرأنا ونور ما طلعناه إلى روح سيدنا مختار مكة اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما طلعناه ila ruuxi sayidina muhammadin alayhi salaatu wassalaam wa ila arwaahi ashaabihi radiyallahu anhu ajmain wa ila arwaahi jamii al anbiyaai wal awliyaai wal mursalin wa ila arwaahi aabaaina wa ummahaatina wa ixwaanina wa asdiqaaina wa asaatisina wa masaaxina xaasa wa ila arwaahi jamii al muminina wal muminaat wal muslimina wal muslimaat wal muridiina wal muridaat al axyaai minhu wal amwaat ajmaina aama wa ila jamii asaail xayraat min al muminaat allahumma ansur man nasara diin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 mel ni nuyoo bi nag ne buñ ko tegee ci loxob sunu xarit sunu wëllëre di sëriñ Cheikh Bombali Mbàkke mu baax mii ne mel na ni teg nañ ko ci loxo mboolem waa Daaru Salaam ak gaawaan sëriñ Cheikh xëy na sunu xamee yàggut lool waaye bu lu mel ni amee ñu jóg ñëw fi na ñépp xam ni yitteem la ak mbaaxam ne nit nag bu ko yàlla mayee yitte te yitte di yitte ju kawe yàlla may ko ak mbaax ne kum woo lum la woo war nga ko caa boo amul ngant ne bi nu ñëwee fii ba léegi ne gisuñu fi déggunu fi lu teeg bëggub Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul kon day mel ni jataay bii nee ku ne mën na fee ñëw ndax mbirum sëriñ bi rekk a fi ne nee lu baax ku la ca boole ameel nga ko ak cant nee sëriñ Cheikh ba mbaali ah sëriñ Modou Lo bu nee na ñu ngi sant bu baax nee ci boole gi nga boole ci lu baax lii nee ndax àddina dara indiwoon fi lu dul sàkku aw yiw ne ku ne la aw yiw a ngi nii kay jël ne ko kii amatoog payam ne na la wóor ni kóllëre gi dox sunu diggante ne fas na nu ko yéenee sàmm ci biir ak ci biti ne fas na nu ko yéenee jàppit ci biir ak ci biti ne loolu lii nu wax léegi ne loolu lii mooy dëgg nee nit. nee la mu bëgg. la ko koy may. mooy yitte ju kawe. akuk njàmbar nee loolu nu wax ci maam Cheikh Anta. nee bu doon woon borom yitte. nee doon woon borom njàmbar nee loolee mu am ci Serigne Touba Khadim Rasoul. ak lu mu bokk bokk ci sëriñ bi. nee manoon na ko bañ a teel a amee noonu yi nee kon nag bu lay tudd di ko tudd nee doxin yi ngay doxe nee di taxawal lii ngay taxawal nee ko xamoon kookee nee mën na laa bañ a jaaxal nee yàlla na gën a sax te gën a yàgg nee te lépp di ngërëmal Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul nee ci biir ak ci biti ne bi nu fi ñëwee it bokk na ci li nu gën a bégloo ci jataay bi. ne ne ba nga nee ñii ci ginnaaw samay bokk lan. ne kon day wane ni. ne li ngay def ànd nga kook say bokk. ne bu fekkoon ni du la gën. ne buñ fi ñëwee mën na fee gis ku ne. waaye ñoom duñ leen fi gis. nee kon no lii dalal na am xel nee yor yokku na it njort lu rafet nee wolof yi dañuy wax ni nee koo bokkalut mooy sa mbokk waaye koo bokkal ku ne sa bopp la nee kon ñoom ñii ñoo ngi leen sant ci seen teewaay nee bu nu sañoon nee jataay bi kenn du nu fi jiitu nee ngir jëmmi sëriñ Cheikh mii nee buñ sañoo ñit nee buñ ñëwee toog dañuy ànd ak moom lépp ba mu jeex takk waaye xam na ngant yi dañ ne woon lu mu xat-xat nee faawu ñu ñëw fi ba ñëpp xam ni nee sëriñ Seex fii la toll ci ñun nee nun ñi ànd ak moom it moo xam ay wëllëre lan moo xam ay taalibe lanu sëriñ bi nee moo ngi ñuy dénk tey dénk boppam. nee nit moom boo àndeek moom. muy muy dox jëm ci dara. nee da ngay laxasaayu. jàppale ko ca loolee mu dox jëm. te muy dëgg ci yow. nee bu ko defee bu yeggee fa mu jëm. nee lu mu bëgg am ko yow it loo bëgg am ko. nee yoon wi daa am lu mu laajul. doxale sa digg ak nee doxale nit sa digg ak sëriñ bi. joxe lii téyelee. joxe lii téyelee. nee ko nit boo ko doyloo. yàlla dogal it mu doy. da ngay fexe ba di ko déglu nee tam lu mu nekk nga nekk ci ak moom. nee te jiital daray àddina. ci sa diggante ak moom. nee soo ko defee rek. lam bëgg dina ko am. te la nga bëgg di nga ko am. sëriñ bi ne kàddu yi mënoon naa gën a gudd. waaye ay kilifa dañu fee ne. ne te ni bi xate it xam nañu ko. waaye kaddu yëpp daal. kaddu yu cant la. kaddu yu xol bu sedd la. ak xamal ñëpp ni. sëriñ Cheikh Bombali Mbàkke mii. sunub xarit la. sunu wëllëre la. te dinañ ko jàpp lool. yee dinañ ko doxee. nee moom nag. war ci wàll yooyu. nee li ko war ci ñaari wàll yooyu. nee matal na lépp. kon lu ci des rek. nee ci ñun la. ak matadik doomu aadama. yàlla na fi yàgg ñëw. yàlla na nu fi yàgg ñëw. amin te yàgg ko fee fekk amin. nee lii mu woote nga xam ne dara génn ci sëriñ bi. ndax lu génnul maam Cheikh Anta rek génnul sëriñ bi. ndax maam Cheikh Anta ñëpp xam nañ léppam sëriñ bi la. nee euh, sëñ Modou Rokhaya moom. bu yàggul dong la làqu. nee bu yàggul dong la làqu. nee aw doxinam ñu bari xam nañ ko. nee kon. bu nu fi ñëwee. fekk fii lii te xam ni. xam ñee. nee te xam ñee. du nu jaaxal. waaye noo ngi ñaan yàlla mu yokk lool. te mu yàgg lool. ba yegg foofu. dana kawe njortam. kawe njortul képp koy xalaat. kawe koy xalaat. sëriñ bi nee noo ngi noo ngi lay yóbbante ab siyaara. nee ci sëriñ Cheikh mi nga xam ne moo yor kaddu Daaru Salaam. di ñaan yàlla it loolee yàgg ci loxoom. di ñaan yàlla it fa mu yéenee yeggal liggéeyub maamam ji. mu yeggale ko fa. te dara bañ koo gàllankoor. sunu xol sedd na. di wax nag ni jërëjëfati Serigne Touba. ne di dollee amati mbégte bu baax. ne ndax ku ne xam na ni. tey laa juma. waxtu wi xat lool ne moom mii di sëriñ Modou ngaabu di kilifa gu mag ci Ngabou ne di jiite ajjuma tey jii di imam ne ko kii amul jot ne kon nag sëriñ bi sa sëñ ba Bombali ne maa ngi lay xamal ni ne di ko seereel sama bokk yi toog ne lii nga def rëy na ci man lool waaye nag bettu ma ne ndax xam naa ni sag yëngu ak sag dal lépp sëriñ Touba Xaadimu Rasuul la ne ci moom ngay tàmbalee ci ngay jeexalee say mbir nee kon lii bettu ma ne teyit nag bi nga duggee ci jataay bi mboolem ku fi toog ak kuréel gii nga fi fekk ñépp ne yëg nanu Serigne Touba bu wér ne ndax nag nee xasida yi ak alxuraan ji nee ku la xam ci la la xamee nee kon nag na nga xam ni jàpp gi ma la jàppoon yeesal naa ko nee dinaa ko dox dinaa ko wax nee te it nag liggéey yëpp sëriñ Touba bii nga ne nee doo ci wet mukk nee ndax taalibe yi ak sëriñ si ñëpp nun sëti Serigne Touba yi muy sëti Serigne Touba yi ak ñëpp nee seen xol set na ci yow ndax nee ku xool ñi nga àndal ak nii nga leen def yar bi ñoom nee dana xam ni la Serigne Touba nekkoon daan yar mag ñi ca nga nekk mooy alxalbu kalmaliki fil axdaa yi yemil tamil maatidaa yi mooy yar ay cër ak xol nee ba ruu am doole ngir liggéeyal yàlla nee loolu rek ci nga ne yàlla na yàgg Hadi nee na noo ngi sunu mbokk ñu fi fekk yëpp. ak sunu mbokk yi. ak sunu mbokk taalibe yi. ñëpp di leen ziare. noo ngi nuyu ñëpp leen ziare. yi nag. kaddu yi nag. gàtt gàtt lay yu gàtt gàtt gàtt lay doon. yu jëm ci seen doom sëñ Cheikh Bombali. yu jëm seen doom ju baax jii di Serigne Cheikh Bombali. baaxoo ñu wax ci yu mel bi nee na baaxoo ñu wax ci jotaay mel nii. comme day doom ju ñu gërëm. waaye comme que day doom joo xamante ni doom ju ñu gërëm la. su defee nii. ñu teewlu si. nee na comme day doom joo xam doom ju gërëm la. mu demee nii. mu demee nii. faaw ñu ñëw fi rek. faaw nag ñu mën a yëkkati suñuy kàddu seede ko jotaay bi. dañ daan toog ci suñ biir néeg di ko seedeel. nee na dañ daan toog seen biir néeg di ko seedeel. ak ci sëñ ba di ko seedeel. ak ci biir kër maamam di ko seedeel. nee na tey nag mu bëgg a jël seere soos yépp génn ko ci pénc mi. ñépp dégg ko. jëmm la joo xamante ni bii. nee na doomam ji jëmm la joo xamante ni. ku yàlla baaxal la. li nga xamante ni jagleel sunu borom la. nee na zaalika fadlillaahi yuuti man yashaa. nee na loolu rek la suñu borom jëfandikoo ci moom. nekk nekk xale. nee na li muy nekk nekk xale. làq na ngërëmal way juróom. muy Serigne Cheikh Anta. nee na te Serigne Cheikh Anta moom. nee kenn werantewul ni. làq na ngërëmul sëñ Touba. ay yooni yooni yoon. nee na yoon yu bari. nee na lu ñëpp xam. nee na bu dee way juróomu jigéen. soxna Ndeye Diop aji Ndeye Diop. koo gërëm na ab sëriñam da koo gërëm a gërëm ba ñëpp xam ko. ñëpp xam ne gërëm ba ñëpp xam ne gërëm na ko. ñoom ñii di ay rakkam. nee na ñoom ñii di ay rakkam ak taalibe yi. seeral nañu ko. seeral nañ ko. kenn ku nekk kenn ku nekk. bu dee waajuram euh, mi nga xam ne mooy soxna Manta. nee na bu dee maami sëñ Bambaali mii nga xamante ne moo jur waajuram soxna Ndey Diop muy soxna maam Anta moom sëñ Modou Rokhaya moom sëñ Modou Mamoul. da koo gërëm. nee gërëm na ko. moom aji Ndey Diop moom aji Ndey Diop. soxna Mantaat gërëm na sa way juru jigéen bu dee aji ndey Jóob it nee na bu dee aji ndey Jóob it nee na sëñ looloo tax am ci kër gi nee na looloo tax nag li mu am ci kër gi yëpp mu am ko fi looloo tax it looloo tax it bi sëñ Cheikh Bambaali ñëwee nee na bi sëñ Cheikh Bambaali gane jamono ñëw mel nii mu mel kon dama koy ñaanal rek nee kon da koy ñaanal rek nee na di sàkku ci sang su baax si fi nekk ak mbokk taalibe yu kawe ak mbokk taalibe yu ñu ñaanal ko doomam ji. bis bi ba bis bi. mu dajee ak ngërëmu maamam. mu dajee ak ngërëmal maamam. làq ci ngërëm yu bëree bëri bëri. bàkki Seexul Xadiim bàkki Seexul Xadiim. nee na mi ngi koy dagaan mbokk yëpp yi fi nekk. bis bu ñuy soog a sos la. nee na ndax bis bu ñuy soog a sof la. na ci nee na kon nag yitte woon na ci ay ñaan lool. nee naa ko li ma toog sama kër lépp. nee na lim toog këram lépp. dafa mel ni maa ngi ci màggal bisu màggal Daaru Salaam. dafa mel ni bisu màggal Daaru Salaam ci la nekk tàmbali na. kon moom boole na ñaari bis. kon nag suñ jeex ba mbaar yi sa bàyyi nee na boole nga ñaari bis. yàlla na sëñ Tuubaa defal la ngërëm. yàlla na sëñ Tuubaa defal la ngërëm. tam yaatu lool. yu ñëpp xaj. gërëm li ko bàyyam gërëm it. nee na gërëm li la sa bàyyi gërëm. nee na yàlla lay gën di yokk ci kaw kaw. barke nee na nag mi ngi sàkkuwaat ci mbokk yëpp. nee na ngeen xam ni sëriñ Cheikh Anta mooy seenu sëriñ. ñu ñaan mu yàgg fi lool te ànd dug wér. te am dëgg wér lool. nee na ak seen baay Abou. suñ borom gën ko fay yàggal. nee na nag di ko ñaanal seen kilifa ñoom ñëpp. nee na seenub sëriñ ñoom ñëpp. muy Cheikh Mouhamadul Mountakha. suñ borom gën ko fay yàggal. gën koo wéral. Seex Xadim Seex Bambaali nee na mi ngi siyaar bu baax sëriñ bi lool njabootu sëñ Modou Roqee gi fi ñëw nee na njabootu sëñ Modou Roqee gi fi ñëw bari na lool bari na lool waaye yëkkatiwuma kàddu waaye nee na boobu ba tey yëkkatiwul kàddu waaye sëñ bi toog waaye nee na sëñ bi toog sama baay di baayam di xaritam dëkk ci kër gii mu janoon ma xam ko bu baax. nee na mu xam ko bu baax. xam ko ci ragal yàlla. xam ko ci ragal yàlla. muy sagub daaru salaam. nee muy sagub daaru salaam. ndax kenn ku ne xam na. ndax kenn ku ne xam na ni. li sunu borom gën a bëgg. li sunu borom gën a bëgg. mooy koo xam ne. mooy koo xam ni. waxtu wu nekk waxtu wu nekk. sa yitte yëpp yëpp. da nga koy ñoŋal da koy ñoŋal. jëme ko ci jëme ko ci. luy jëmale diina ci kanam luy jëmale diina kanam. ñi fi toogoon léegi. nee na ñi fi toogoon ci léegi. ñoo dëkk baari ndondor ñoo baari ndondor. sëriñ bi toog nee na sëriñ bi toog. moo fa doon jiite korite. moo fa doon jiite korite. korite googa. korite googa. yor. ngóor soosa nee na ngóor soosa. yoroonu paaka yoroonu paaka. xaat di jëm ci kaw xaat di daw jëm ci kaw. daw benn yoon dawul benn yoon. daa taxaw daa taxaw yeggale julli yeggale julli. kon nag kon nag maa ngi ñaan nee na mi ngi ñaan. mu ñaanal mbooloo mu ñaanal mbooloo bi yëpp. ndax lu mu ñaan yàlla ndax nee na gëm na lu mu ñaan suñu borom def ko. jërë ngeen jëf sëñ bi. أثبات نار كيد من مولاه seere ni sëñ Cheikh Bombali mi seen doom la seen doom la seen lépp la waaye ku am yar la ku am ay teggin la neena ñoom ñii di ay waajuram bokk ak waajuram waajur am yar ak teggin akuk taalibe lañ xam ci moom nee na lii seere nag nee na yàlla rek tax nu koy seere nee na ñoo ngi ko sunu borom mu musal ko ci ay ndog te fi mu bëgg mu àgg fa ci barkeb Sëñ Tuubaa nee loolu mooy kàddu yi nga xam te ni mënu woon a ba dem te seerewu ko وجاءني من رسول لا يدني فر لكان دينا بادا وجاءني رسول الله تنير مخدمي إن الذي تقول ضيق دمي

asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu maa ngi yëkkati kàddu ci ndigalu sëriñ jiili mu sëriñ Modou Rokhaya di rakki sëriñ Cheikh di ko yëkkati ci turu sëriñ Cheikh mi nga xam ne mooy waajuru sëriñ Cheikh Bombali di ko yëkkati mu jàll ba ci soxna Ndey Jóob mi nga xam ne mooy waajuram te lii mu dooroon ko ba sëriñ Cheikh aw ko ci kàddu yi ci jëkk mooy yoon wi yoonu jëf la waaye du yoonu wax Cheikh Ibrahima Fall mi ci raw dara boolewu ko Serigne Touba lu weesu jëf jëf rek ko ko booleeg Serigne Touba yoon wi du yoonu mbubb du mbaxana doy dàll yoonu pas-pas la ci xol lay nekk ci xol Cheikh Ibrahima li ko booleeg Serigne Touba du yére ba muy tërbiyewu fii ci Daaru Salaam na ci lum sol amu ko mbubb yii de doot ay couleur da daan def fu mu romb morso bu ko mën a suuturaal mu ñëw ko ci yaramam ba mbubb yu nuru ay njaxasaane loolu moo andi couleur Baye Fall bii waaye ngir ku ko seen na murit baa nga nee murit pas-pas la bu ne ci ab xol loolu moo jëriñ Cheikh Ibrahima Fall ñetti at yi mu def Daaru Salaam lu mu lekk ndab lii mosu ko fee mën a fekk bu masaa bëgg a lekk maam Cheikh Anta mam bokkal sëñ sëñ Touba tañ tër bi yondoo ci moo daan dem ci xuruwu lëndëm xam na Cheikh Ibra dana fi jaar mu teg fa ndabul lekk ak ndabul naan bu Cheikh Ibra goree ba agsi ci daan na lii la sama mbokk mu baax maa ko fi def soog caa jëfandiku waaye bëgg lekk taxu ko dëpp bëgg naan taxu ko dëpp kon yoon wi yoonu dal la ak pas moo ciy jariñe sëriñ bi nag wax ne xolam sedd na guyu ndax jëf ji nga xam ne sëriñ Cheikh Bombali mi ngi koy jëf awe ko ci way juram soxna Ndey Jóob soxna Ndey Jóob ak sëriñ Cheikh way wayjuru soxna Ndey Jóob wu jigéen ak jëmmi sëñ Modou Rokhaya mi meññ sëñ Cheikh sëñ ak soxna Aminta Mbàkke mi meññ sëñ Cheikh Bombali ñoo bokk nday ak baay kon moom doomi sëriñ bi la jarbaatub sëriñ bi la bi mu matee dal jàngit baayam da ko yóbbu ngaay mu jàng alxuraan ba mokkal ko bi mu ñëwee jàng xam-xam yam ci loxoy baayam ba yàlla dogal mu gis way juróom di def lii juróomi fan yi màggal gi mu xam ne bis bii ci la sëriñ Touba ñëwee woon Daaru Salaam ñi di ko ci ganale ngan nga alxuraan la daan doon ak teraanga mu ne teraanga joojee li ma ci man danaa ko ci def ba mu koy tàmbali mënu ko ndax da cee aw yaayam yaayam rek ko daan def mu ne ko fas naa la ci yéenee aw di ko def waaye defuma ko nag ngir bëgg àdduna defuma ko ngir wane sama bopp dama koy bëgg def rek ngir ñu xam ne sama baay bii liggéey na ci Daaru Salaam loo xamante ne bii kenn du ko fàtte ak wane it ne sama yaay doon na sonn te bëgg naa koo aw loolee nag daaw ba mu ko defee ak daaw jeeg ku ne xam ne ne boo dikkee da gis ne jëf ji yokkuwaat na li ci gën a am solo mooy mu xam fi way juram toll mu ne damaa bëgg buru bépp yam sama kër su may andi ndab li ma yoot ndànk andi ko ku ne xam ne ba mu ko andee daaw baayam a taxaw di wax ak moom kon su ko andee te mënu leen a àgg te moom su ko neexoon àgg ca baayam bur yu boobu moo tax ñu ne na na ndab yi ñëw ndànk moom la sang bu tedd bii doon wax ne murit daaw marawel ne ab néew ci kanam ko koy sang du ne jëme ma càmmooñ du ne jëme ma ndijoor ca fañ koy ragg duna ragal ma bërëb sàngam day bàyyi ba ka ko doon ragg noppi rek la ca neex mu def ko ca moom ab murit noonu la war a mel Cheikh Ibrahima noonu ne woon ab murit dërëm la ci poos du yëngutu du la jël borom waaye saa yu ko génnee faj soxlaam loolu moo di ak murit ndokk ba nga ko jàngalee. sëriñ Seex sëriñ bi nee na mi ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal yàlla fi nga jëm yàlla nga fa àgg te bañ a am menn ndok moo waxal boppam ne xolam sedd na ci yow moo waxal boppam it na gërëm na la tuddala it koo xam ne mu di sëriñ Seex Bombali mu sëñ Mbàkke Madina soxna Aminta mooy taawub sëriñ Modou Mamoun. jur sëñ Cheikh Bombali sëriñ Modou Rokhaya mooy taawu sëñ Modou Mamoun bu góor jur sëriñ Cheikh Anta soxna Maamanta Mbàkke mooy seen rak jur sa yaay kon génnoo sëriñ bi ci genn wet kon boo liggéeyee liggéey bu toll nii andi ko ñu dem di ko jox jàngkati alxuraan yi nga xam ne dañuy gàttandu ñibbi si sëriñ Touba jóge ci géej gi nga xam ne talaata lañ war a séentu sëñ Touba mu ñëw Daaru Salaam gii xéewal yi mu fi defoon mu defaat ko fi nga jëf ci jëf ji toll nii sëriñ bi nee na ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal yàlla fa nga jëm yàlla nga fa àgg waaye yàlla benn menn boo am menn ndog waxoon nga ma sew saw na ma jëf jii de boo ma ko jëfee ba noppi soo ñëwee jël ko yóbbu doy na sëkk ndax bëgguma lenn luy nuru àdduna ànd ci bëgguma nur luy nuru njistal ànd ci su ma sañoon benn bur wi du du depp du àgg ci sëriñ bi kon su ma ko jëfoon ba noppi nga ñëw na ma seex andi jëf ji ma teg ko ci sa loxo nga dem jëf ko ndax dana ma xam ne àgg na kon nag na nga xam ne sëriñ bi gis na ko di sant nag sa xarit yi nga àndal rawatina njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall sëñ Touba moo boole Cheikh Ibra ak sëñ Gaawaan kere bi maam Cheikh Rahima Fall amee fii ngërëmul yàlla doon tër bi woo ci armeel yii boo demee ak ëkk nga fa goo xamante ne bi fa sëñ Touba gërëmi Cheikh Rahima Fall ba tey ëkk ga dañu fa ma nga fa sëñ mas na faa toog wax na ku neex ab gis jàkkaarloog buntu buntu kër rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam daana garab gu jublu xeblaa ngi nii moog buntu Kaaba ga ñoo jàkkaarloo mag foofee la sëñ Touba gërëme sa maam Cheikh Ibrahima Fall kere ba mu ko gërëmee ba noppi daf ko ne Cheikh jëlal ma Ibrahima Fall yóbbul ma ko ndar maam Cheikh Anta taal otoom yóbbu ko ba ndar mu wàcce ko fa ba ko fa wàccee it Cheikh bi ne ko fii mooy fan mu ne ko mooy ndar mu ne ko nu ma fii wut mu ne ko sëñ Bamba la naa la fi wàccee xamu fa kenn keroog ba ko fa wàccee ba dem ci la Cheikh Ibra njëkk fanaanoo ab donga bisub keroog la Cheikh Ibra fanaanoo ab donga xisa ba daa gudd kon yéen ñaar seen ñaari maam yi yàgg nañoo ànd sëñ seex Ibra bi sëñ Touba demee ci géej gi sëñ Modou Moustapha Fall sëñ Mor Talla Fall sëñ Ablaye Fall Ndar ñëpp ci loxol maam Cheikh Anta la la tegoon moo tax sëñ Mor Talla Fall tuddee sëñ Modou sëñ Ablaye Fall Ndar tuddee sëñ Modou Mamoun Fall mosam sëñ Modou Mamoun maam Cheikh Anta kon ànd bi lu yàgg la sëriñ Modou Roqeya sëñ Modou Aminta Fall sëriñ seex faal Baye góor ñoom ñett ñii ñoo bokkoon benna laal fii ci Daaru Alimul Xabir keleen ñeenteel sama way jur la woon xam naa leen bu baax a baax a ngeen ànd bu yàgg ngeen gunge ko ñëw ànd moom ci lii kon sëriñ bi nee na mi ngi lay sant di la xamal ne ñi nga àndal mat nan la ay àndandoo fi nga jëmit mat na ab jëmukaay yàlla ngeen fa bokk àgg te bu ngeen am menn ndog ci barkeb Serigne Touba jërë ngeen jëf. Serigne Jili nee na ñëpp tàllal ci lu waay bëgg ñu fas ko ci te buñ noppee Baye Fall ko yanu woon nan ko yanu ba ci sëñ Abo